Pathé Mbodj euh, maa ngi lay nuyu. waaw mbooj nga nekk euh, journaliste analyse politique euh, déjà ñu taxaw si validation wu candidature Bassirou Diomaye Faye conseil mhm. constitutionnel amal ko ñu bëri foogoo ne mhm. nag dañ koy invalider yow déjà naka nga jàngate mbir moomu ah, le bu fekkee ni conseil nga xam ni mooy ëtt bu gën rëy ci mbirum yoon. wax na ni mun na nekk kon lu mën a nekk la nekk na mu jeex. Hmm, ñu bëri da leen bett de foogoon nañ ni Bassirou du ñu valider candidature. xëy na ñooñu ñu muy bett dafa am taxawaay bu ñuy taxaw boo xam ne ak gis-gis bu ñuy gis boo xam ne ni. Hmm. xëy na mooy li tax ñu naan boo lakkee dëkk bi ñu jàpp la ñu ni politique la acte politique la politique yàlla ñuy jàpp jàpp ñu citoyen ku nekk rek loo taxawee rek ngay xoolee mais bu fekkee ne conseil constitutionnel nga xam ni moo gën a màgg ci li ñu taxawal ñun ci mbirum yoon nee na loolu mun na ne dafa war a mën a nekk boo xoolee sax li àddina bi doxe gis nañ ay nit ñi nekk kaso ñu bàyyi leen ñu nekk candidat wala ñuy eh, doxal li ñu war a doxal Euh, léegi dina ñëwaat si kanam tuuti si kaw ba Bassirou Diomaye Faye mais aussi gis nañ ñu invalider euh, candidature bu Karim Meïssa Wade mu nekk coup dur euh, ci parti démocratique sénégalais naka nga gisee côté boobu. ma ne bu fekkee ni loolu am na daal bu ñuy jooy ñoo xam lu ñuy jooy ne xam ne waroon na ñuy jooy ndax mënoon topp si nit naan bu dul yàlla bu dul moom dootul nekk keneen. nga yow nga jël sa nguur moom bokk si nga nekk sa nguur mu nekk si eh, ay di ay di nguuru këram nga ñàkk nguur mu toog ay di nguuru këram fekk parti bi cadre yu bare dem seen yoon nga naan budul Karim Nduké léegi ñu ngi nii les bokkuñu deux mille dix neuf bokkuñu deux mille vingt quatre xëy na bu boobaa dinañ dinañ dem ba saa ñu ni nag dañu xoolaat suñu bopp ñu yedd suñu bopp. xëy na waa PDS dina yedd seen bopp am na ñoo xam ne nit ñi ma waxtaanal ci ñoom. Mm-hmm. bu dee ci ñi ngànk euh, parti boobu xëy na ñi ci kaw ñoom nee nañu dinañ ko defanteeg Macky Sall waaye ñi ci suuf ñoom euh, ñu ngi commencé yeddaat seen bopp daal. Mm-hmm. mais gi avenir u parti démocratique sénégalais Pathé Mbodj noo ko gisee est parti bi euh, du tas jaare fii yàqu wala ban jàngat nga ci am daal. ma ni xaw eh, ni nga ni nga mel ni eh, parti socialiste mel ni nga ni LD mel ni nga ni mel dafa am dañuy dem dañuy dellusi nit ñi lañuy ñuy seet xëy na am na lu ñu seq ak wàdd li askan wi seq ak wàdd li leen wàdd defal eh, depuis deux mille naam xëy na li ñu si séntu woon yëpp gisuñu ko boobu moo tax ñu séentuwaatoon keneen mu doon Macky Sall xëy na moom tamit liñ si séentuwaatoon yëpp gisuñu ko mais ñooñu ay politiciens lañu politicien bu la waxee nii wax nañ la jarul dóore seen doom léegi ñoom si seen bopp dinañ toog ni dem bokkuñu ndax lii mais nañu seetaat na ni ñu bootee suñu kii ba pare ñu yàddaar suñu bopp xëy na lii la wàdde la ñu rusoon xëy na wax si boppam da wax ni léegi lii kat moo fi am nañ ko doxale noonu ñu seet euh, ku ñuy seetaat ñu yore parti mu dox waaye PIT mi ngi fi LD mi ngi fi parti socialiste mi ngi fi ak luñ fi mën a nekke mi ngi fi PDS tamit xanaa noonu ndax am na am na ndax PDS di rek euh, Ablaye Wade da ba doon Ablaye Wade ak doomam ak euh, soxnaam tas na kon nag dafa am ñeneen ko yore ñu leen ñu ko yore ñi nga xam ne ni di delloo njukkal Wade ni ñu ko mën dencal deux mille euh, neuf cent soixante dix huit ba léegi bu demee euh, jongante ñu yebal euh, yennal ko ko ah, te ñu ko ko yennil boobu ak léegi am na juróom fukki at ah xëy na kersa googu ñoo nga ko wàdd xëy na mu jeex ñu xam ni PDS bokkutul waaye bu kersa googu defee mu des ne ñeneen mën ko doxal ba kese gi des fi ak yaakaar gi des fi euh, parti fi ñu fi PIT ñu fi LD nekkee ñu fi parti socialiste nekkee ñi <laughs> ñu taxaw aussi si candidat yi euh, bari na par rapport ak élection présidentielle bu 2019 juróom la ñu amoon bi yoon conseil constitutionnel euh, validé ñaar fukki candidat naka gisee list bi bari na wala bariwul si yow waaw ah, waaw naka nga gisee ñi waxoon ni dañoo bëgg a bopp ñeenti téeméer yi bare na walla barewul ñooñu bare na ah, ñu la wax ne bare na boo amee deux cent kay mujj si vingt xam nga kon kii bu fekkee téeméer mu nekk benn lañ ci jël ah du wala fukk lañ ci jël kon kay dal na xel ndax dañ ñi démocratie lañu munoo bëgg nag euh, munoo ñeme akara bëgg akara te ñeme woo kaani te démocratie loolu la ku bëgg na bokk jàkk jàng ku mën a nodd na nodd ñu toog di nodd nga ne lu tax ñu nodd te te te julli jot na démocratie moo ñu teg ni ñu dekkee ñu nangu ko ba bu ñu tëralee charte bu bees ni comme ni ñu ko tëralee woon deux mille dix neuf ba am juróomi kaat xëy na dina bu boobaa dinañ yedd suñu bopp waaye boo amee trois cent partis am deux cent ah, en tout cas de candidat à la candidature ba mujj ci vingt ah kon kay moom ñu sant yàlla rek. Hmm. est-ce que kon euh, élection yi dina neex organise organiser élection présidentielle. Ah, ak vingt candidats organiser. Hmm, si sa xalaat. moo koy xanaa. Ah, techniquement daal. Hmm. non techniquement c'est c'est aussi simple li li indi cinq candidats moo indi vingt mais nga def sur table bi rek jël ci jël vingt yëpp jël jël ki ngay woteel dugal sa enveloppe sa nii <laughs> mu jeex mu jeex lool la yoon wax loolu la yoon tëral ba loolu bëgg ñu def léegi. waaye couverture médiatique bi dina métti aussi si côté boobu. ah non couverture médiatique non loolu ça c'est autre chose. ça c'est autre chose couverture médiatique lu mu métti métti vingt candidat la euh, ni ni ngeen daan doxalee ngeen daan doxal ay centre yi ngeen di dem. ay région ngeen di dem ah ay euh, kër ngeen di dem bon bu nga amee vingt ngeen di am vingt bu amul vingt ngeen seet parce que vingt tamit du parce que am nga vingt rek vingt moo vingt fayda moo am na ñoo xam ne amuñu fula amuñu fayda wóor na ma yow sa bopp booy organiser eh, say reportage bon am na kër yoo xam ne doo fa yéen këru candidat yoo xam ne doo fa yéen kenn parce que da nga naan ñooñu kenn xamu leen ah, tojuñu fenn vraiment. <laughs> léegi ñu euh, taxaw aussi euh, si kaw basiru Diomaye fay euh, peut-être c'est la ah. première fois benn candidat à l'élection présidentielle fii Sénégal mu fekk ko si kaso bi naka la mbir mi ni mm. defee est-ce que justice dafay obligé bàyyi ko mu génn campagne wala dafay des ci biir kaso bi si sa jàngat daal naka la mën a demee exactement. ci suba naan yoon bi ci article bi kii la euh, saytu na situation bu mel noonu bu wowoon lu mu demee loolu ci mbirum yoon la ci ki yoon la ñi ko tànn xamoon nañu ci lu ñi ko euh, nangul xam nañu ci lu xëy na ñooñu ko tànn ak ñi ko nangul xam nañ ñu nii am na lu ko yoon may ak lu muy doxale bo ñu seet ko euh, ñu bàyyi wànnante ki bëtam ba si kanam. ah mais lu ni mel euh, comme yeneen cas yi nga xam ni peut-être am na si yeneen dëkk yi si euh, sa xam-xam naka la doon demee exactement la le fait que. benn dara xam nga campagne bu la neexee nga dox sa biir néeg def sa campagne bu fekkee ne jàppale nañ jàppale nañ boo waxee ñu dégg boo amee temps d'antenne ñu teg sa temps d'antenne à blanc ba mu jeex bu boobaa ki la tànn eh, wax nañ la woteel ñi ko topp ñu dinañ ko woteel dinañ woteel Bassirou Diomaye Faye mu jeex léegi eh, Bassirou mooy Sonko Sonko mooy Bassirou est-ce que pour yow profil yi benn la est-ce que Bassirou Diomaye mën na gagner électorat wu Sonko. ma ne du benn du benn du benn du benn li xale yi gis ci Sonko deux mille vingt et un li xale yi seetlu ci Sonko euh, ci ci jaar jaaram depuis deux mille seize ba mu jaral leen seen bakkan xëy na euh, Bassirou jaral leen ko. bu leen euh, euh, comme li ñu bu leen di sonal biir njaw njaw ak leen bokkul waaw njaw mun na wax waaye xëy na man li ma seq moom sequma ko ak Basiru te mun naa bu waxee man ko man li ma la toppee toppewuma ko kii kon ba mu waxee toppal Basiru du ma ko topp ndagam Macky Sall si boppam mooy tànn jël ñi mu fal mm-hmm. ñu naan bokk euh, topp ma voilà la ngeen bëgg a leeral kon Sonko tamit mun na tànn ñu ni ko déedéet xëy na ñu am kersa ko mais dana tas daal. Hmm, électorat bi daal électorat foom daal dana ko tas. dana ko tas surtout que Habib Habib ngi fa. Ah, ah, Cheikh Tidiane Dièye ah, Malick Malick Kële. Cheikh Tidiane Dièye. ah waaw oh, ñoo Cheikh Tidiane Dièye moo ko fooyee mais yéen ñu ngi fàtte tamit keneen kii mi ngi fi. ah ñi nga xam ne ni ñoo ñoo daroon ñoo daroon Sonko yëpp naan di xalaat ni bu daanoo xëy na mu ñu ñu jëlee si dara ñu ngi si léegi ñoom seen bopp def ñu noonu seen biir léegi dina sefe seen bopp lu ñu def ndax dina ni yedd seen bopp ñu ni mbir mi dox na nañu seet balaa ñuy fasar euh, fasare suñu alal ñu seet yalwaan gi naka lañ koy séddale ba Basiru mën a si génn ñuy bàyyi jàppale ko loolu tamit euh, lu mën a nekk la. waaw ah. est-ce que ñenn ñi sax ñu ngi wax seex Tidiane Dièye ak euh, euh, comment dirais-je Habib Sy dañoo war a démissionner est-ce que pour yow d'accord nga si lool bàyyi. non li ñuy wax li ñuy wax li ñuy wax ak war a da bare na li am Sabina. waaw li am mooy am nañu ñaar fukki candidat. ci ñaar fukki candidat am na ñeent wala juróom yoo xamee ni sorewuñu Sonko kon Sonko am na ñeent candidat ñi xalaatoon loolu ba ni dañuy ndax nguur gi wër ko ndombo boo lii am xëy na dina xalaat seen biir naka la ñuy def aussi ba génn si lii ñu nekk parce que fi lii ñu nekk nii du jàmm ndax li ñu waroon am euh, ñeent ñu séddale ko ñeent ku nekk am benn. Ah, kooku du du du du leen jàppale kooku nguur gi lay jàppale. Euh, dernière question combat bi nga xam ni recalé yi soobu nañ si ñoom Aminata Touré ak ñoom seen bari nañ euh, candidat yi nga xam ni jàlluñ tëye nañ leen si parrainage ñoom seen na nga gisee nee nañ dañuy jàmbaarloo nguur gi noo ko gisee. dafa am lu yoon tëral. kër googu nga nekk am lu fa yoon nangu xel nangu ko ñi daanu. xam nañu lu tax ñu daanu ndax ndax ndax xam nañ ndax lu tax ñu daanu mooy bokk nañu ci mbir boo xamee ni waxoon nañ leen nu muy demee ku nekk def ni nga mënee. waaw bu fekkee ni dem nañu ba ñoom seen bopp daanu nañu ñu ne dañuy yëngal réew mi ku mënul am sa jabar jàppale la ah wala nga am sa jëkkër jàppale la nga génn ni da ngay kii réew yaakaar ne li Sonko def deux mille vingt et ba deux mille vingt trois mun nga ko. mbir maa voilà mi ngi noonu kon ñu ngi lay remercier bu baax a baax Pathé Mbodj ci tontu bi nga tontu suñuy laaj ñuy fàttali ni Pathé Mbodj taskatu xabaax nga nekk analyse politique merci jërëjëf. merci